njaboot gi yëpp di leen wax ni lii nag yëfi àddina la lii moom ku ne am na bisam buy ñëw waaye dañ naan rek gën a bees lay fi am waaye ñëppay dem incha allah rabbi di ñaan yàlla lii gëj fi ah, ñaan njabootam lii oyof seen kaw maanaam yàlla xaare ko àjjana te yéexee ñu di wax senegal rek ñu delloo si waat seen xel te xam ni lii bette na lool deewu coon Seck moom ku mu bettuwul moom amut ci àdduna ñëpp la bett ndax kenn foogu ko woon dëgg la nag yàlla moom day jël te ñëpp xam nañ ni dee moom force la waaye am na ci dee yoo xam ne moom day yéeme ba nga xam ni ak bette ba nga xam ne rek doo mën a xam fu mu lay toll waaye àdduna nañ xam ne lii yàlla da cee wanewaat boppam rek wane ni ñoo war a bokk ndey bokk bàyyi ñëpp booloo nekk benn te xam ni ñun ñëpp ay dem fa yàlla. ban message ngay lancé xale yi des ci ginnaaw tey parce que ku mel ni Papa Thione buñ ko ñàkkee tamit royukaay la boo xam ne xale yi war nañoo xam ni tey lii nii war naa tax ñu xam ni du jongante. dëgg la royukaay la kilifa la. kilifa la boo xam ne papa yi ñëpp la. Thione Seck ku ne xam na ni. ay doomam ak doomi jàmbur la yemale chaque jour sax bu coo amee ci musique day génn taxaw yemale ñëpp du far fenn kon kooku dañu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ñi nga xam ne nag ñoo des ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoo ko uutu tey nekk fi mu nekkoon ñu jéem koo sàmm nekk nekkin boo xam ne tey fa mu ne moom dina ci bég te dina ci kontaan yàlla def jàmm ndax lii moom métti na trop ñu ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg fi yàlla xaare ko àjjana nag si ndax papa yi ñëpp la coon international la du coon national kese kon tey fii kenn li lay wan ni àdduna bi ñun ñëpp benn lañ fii tey kenn desul ñëpp a ñëw tey kon kenn amul problème ci réew mi ndax dee bu amee rek ñëpp booloo réeroo lu mu mën a mën a mën a am bu dee amee ñëpp booloo kon nañ xam ni yàlla rek ay dëgg te yàlla lu mu namm ci jaam lay am ñuy ñaanal njabootam yëpp di ko jaale njabootam yëpp ñëpp am dal ba pare lii oyof seen kaw ay saraxam yàgg seen loxo ba yàlla defal leen lu gën si ñoom ci barke mu Muhammad